président nag yónni woon ma fi ci euh, xalif général kullu murid sëñ Muntaxa Mbàkke euh, ibn sëñ Mouhamadou Bachir euh, nekk yónnent boo xam ne d'abord yónnente ngërëm la ndax kenn fàttaliwul déjà kenn fàttewul bërki démb ah message bi nga xam ne sëñ Muntaxa joxe na ko jël lu takku it teg ko ci loxo président teg ko ci loxo état bi ne mooy contribution pour askan wi ci faj bi nga xam ne moom la ñuy faj askan wi loolu it président rafetlu ko teg ko ci loxo kër docteur yi ah, ñu koy utiliser loolu président mu ngi ko ci remercier ñuy remercier it ah, ah, sëñ Muntaxa ndax sëñ Muntaxa wone na li nga xam ne moom la kilifa gi mu doon di kilifa kullu murit di kilifa diine ci réew mi wane na li nga xam ne moom la moom la moom la yelloo mooy mi ngi ci ñaan wante nee na fagaru fagaru boobu bi ñuy demee tey cee jumaa ja moom ci boppam produit yi nga xam ne moom la ñuy euh, fagaroo ci mbiri euh, solution euh, hydroalcoolique pré moom ci boppam sëñ Mountakha jëfandikoo na ko wax na ko nit ñi di jëfandikoo bi loolu passé it nee na jaxasoo bi ak dem dikk bi ah lu dul farata nañu ko jéem a wàññi loolu message am ñëpp dégg nañ ko euh, defe naa sëñ Afeñan moo délivré message bi ci jumaa ji loolu ñoo ngi koy rafetlu ci turu président incha allah fan yi di ñëw dinañu tam président dina yónnee ci kër yëpp pour que nit ñi comprendre ne réew mi fii mu nekk dafa tollu ci ci guerre ak coronavirus et que kilifa yu mag yi ku ci nekk euh, li nga war a def yëpp ci wetu état bi ci wetu euh, euh, kër docteur yi soo nga jàppale ñu ci incha allah ba nga xam ne feebar bi dina mën a yem fi mu yem génn réew mi ñi nga xam ne xawoon na leen a dab ñu tane ci jàmm ah réew mi continuer doxam vers l'émergence